àllarba fukki fan ak ñett ci weerum février atum 2019 dalee jàmm ci seen xibaar yi ñeel campagne présidentielle bi li ci gën a fees bokk na ci parti bi unité de rassemblement bi nga xam ne teggi na tuuma yi nga xam ne teg nañ ko ci kawam ginnaaw fitna yi amoon foofu ca Tambacounda président bu coalition Idy 2019 moom nag bëgg naa lëkkaloog ndaw ñi mi ngi woon ko waxee woon foofu ca Bignona ngir rek sécuriser li nga xam ne mooy vote bi présidentielle 2019 ànd ak fitna président Macky Sall Sonko daal dinay wax ginnaaw ba ñu bloqué li nga xam ne mooy convoi wam foofu sa pont Émile Badiane ba tey ci xibaar yi ngeen ci déglu tey jii nag kàddu étudiants yi ndax ñoom wax nañu violence yi nga xam ne am na ci campagne présidentielle bi ni ma leen ko waxee woon ci boppu xibaar yi parti bi unité et de rassemblement daal nay teggi tuuma yi nga xam ne ñu leen ko joxoñoon gilaaw fitna yi nga xam ne amoon na foofu ci Tambacounda seen diggante ak waa Benno Bokk Yaakaar candidat bii di El Hadj Issa Sall daje na ak taskatu xibaar yi waaye nag tey jii mi ngi joxoñ a baaraamu tuuma jëwriñ gi nga xam ne moom lañu dénk wàllum kaaraange ak président Macky Sall moom nag li muy ñaaw lu mooy ay nit yoo xam ne bokk nañu ci moom di garde rapproché ñu daal leen jàpp ñu dégg nag ay kàddoom ak ndaw yu ñu fa yónni woon di Moussa Bey ak Mouhamed Bopp à la sortie de Tambacounda, à notre grand étonnement, nous avons vu un pick-up de couleur blanche décharger beaucoup de jeunes, accompagnés d'une centaine de Jakarta, pour la plupart de couleur jaune. Ce sont ces mêmes jeunes, et peut-être avec tant d'autres d'ailleurs, qui étaient à côté du chemin de fer ont continué à nous jeter des pierres. Le bilan est extrêmement lourd. Une dizaine de voitures caillassées. Quatre voitures totalement calcinées. Ils ont mis de l'essence et à l'intérieur de ces voitures se trouvaient Dans certaines voitures se trouvaient certains de vos confrères et journalistes. Ils ont mis de l'essence et ils ont brûlé ces quatre voitures. Donc quatre voitures calcinées, plusieurs blessés de tous les côtés. Une personne a été mortellement heurtée. Nous déplorons à nouveau une perte de vie humaine. Nous présentons donc nos sincères condoléances à la famille du disparu et aux blessés, agents de sécurité, journalistes, membres du cortège. Bon rétablissement. Je profite de cette occasion pour dire que n'eût été la bravoure de nos agents de sécurité, nous serions tous morts. Ils ont été extrêmement braves au risque de leur vie. Nous n'avions aucune protection. Tout au contraire, nous avions senti dans cette affaire une complicité du commissaire de police de la commune de Tampakota. Nous n'avions aucune protection. n'est-ce pas, des forces de La responsabilité du ministre de l'Intérieur est engagée. Et par-delà la responsabilité du ministre de l'Intérieur, c'est la responsabilité du président de la République qui est engagée. Je reviens là-dessus et je le rappelle, n'eût été nos propres forces de sécurité, certainement la protection qu'ils nous ont donnée actuellement ne servirait qu'à protéger les trois autres candidats restants étant entendu que naturellement le candidat du pouvoir est bougrement protégé. Je dis ne servirai à protéger que les trois candidats, autres candidats restants parce que moi je serai déjà parti. C'est ça la réalité. ci njiitu PUR la ñuy desandi ndax naa dina jël ay avocat ku ci mel ni maître Ousseynou Gueye nekk avocat ci barreau bu Dakar maître Clédor lii ak maître Demba Ciré Barthily ak ñeneen moom nag daal dinay wax nag ay ndawam yi nga xam ne ñoom lañu àndal ñu def campagne boo xam ne du ànd ak benn fitna ñu déglu ki nga xam ne mooy professeur Issa Sall. C'est ainsi Amadou Ladiba du barreau de Tambacounda Siré Clédor Ly du barreau de Dakar Demba Siré Bathily du barreau de Dakar Bamba Cissé du barreau de Dakar Boukounta Diallo du barreau de Dakar et Étienne Dione du barreau de Dakar. Ces conseils nous serviront de prendre en charge nos camarades qui sont actuellement en audition à Tambacounda et de voir la conduite à tenir relativement à l'irresponsabilité de l'État du Sénégal, à l'irresponsabilité du ministre de l'Intérieur, à l'irresponsabilité du commissaire de police de Tambacounda et à l'irresponsabilité de toutes les personnes qui ont participé à cette odieuse affaire. Au moment où je tiens cette conférence de presse, seule ma garde rapprochée est en train d'être entendue et certains éléments de mon parti. Aucune autre personne n'a fait l'objet de convocation ou l'objet d'audition. je réitère mon appel solennel. Cet appel que j'avais déjà lancé au début de la campagne pour que cette campagne reste civilisée, reste démocratique, reste transparente. Cet appel va à l'ensemble des militants du PUR, à l'ensemble de ses sympathisants. et au peuple sénégalais de l'intérieur et de l'extérieur. Ce sont les urnes qui, le 24 février, feront la différence. Je vous remercie. sa Seck moom li mu bëgg mooy ndaw ñi ànd ak moom waaye nag sécuriser li nga xam ne mooy seen vote ma nga ko waxee foofu ca marché orange bi amoon ca Sédhiou moom njiital coalition Idy 2019 nag moom nee na bu ñu may président Benno Bokk Yaakaar lenn mi ngi ko xamal ak ndaw yu ñu fa teewaloon di Sadibou Fall ak El Hadj sur laquelle nous comptons particulièrement pour sécuriser le vote. parce que nous savons déjà que le désir de changement est imprimé dans la majorité des cœurs du peuple sénégalais. Avec tous les talents yi nga xam ni Sénégal avec toutes les richesses toutes les ressources que nous avons au Sénégal dont la plus importante est la ressource humaine qui est d'une qualité nga xam ne addina bi yëpp dañ koy xëccoo boo demee Nations Unies boo demee Banque mondiale boo demee ci organisme internationaux yëpp ay sénégalais ñoo koy doxal ak même ay entreprise yi gën a mag ci addina bi ay sénégalais ñoo koy doxal li tere doxal ko fii ci Sénégal c'est simplement le déficit de qualité de la politique conduite par l'actuel régime APR. ñun nag suñu coalition bii nga xam ne taxaw na président Pape Diop taxaw nii Mamadou Diop Decroix Amsatou Sow Sidibé bokk ndey bokk baay taxawal programme boo xam ni li ñu ci jiital mooy yorin bi ñu yore Sénégal ñu sellal ko teg ko ci dëgg ak njub ak am yërmande en direction des populations ki fi nekkoon njiitu réew président Macky Sall moom nag ñaawlu na fitna gi nga xam ne gis nañ ko ci campagne électorale bi moom wax na nag ab message daal di wax ñi nga xam ne moom la ñu àndal li nga xam ban taxawaay la ñu war am ñu déglu ay kàddoom ak Youssouf Mien nag Sélé Mbaye liggéey am na liggéeyantu am na man nag liggéeyantu wu ma ndax li ma def réew mi gis na ko rattrapage bu metti la la ñu def bu metti ndax bi ñu ñëw wax dëgg yàlla réew mi metti woon na ci fànn yëpp nag dund gi wàññi nañ ko dañ na woon mënul nekk ceeb wàññi nañ ko dëwlin wàññi nañ ko suukar wàññi nañ ko gaz wàññi nañ ko essence bi wàññi nañ ko depuis lors malgré conjoncture boo xam ne gëj na am ci àdduna bi le baril à quatre-vingts dollars on a pu maintenir les prix à leur niveau actuel loolu ku amul gis-gis amul yéene nekkul liggéeykat mënu ko def moo tax nag li ma gis fii ci kaw la gis ko léegi Nioro gis ko Bounkiling gis ko démb Ziguinchor Oussouye même département yi ñu naan département yu ndaw la mobilisation yu doy waar la fay gis mooy wone l'attachement des populations leur adhésion pour la poursuite du plan Sénégal émergent afin que la jeunesse trouve de l'emploi davantage, que les femmes soient entreprenantes avec tout l'accompagnement nécessaire. Et l'ADER est là pour cela. Chaque année, 30 milliards dans un premier temps. Les bourses de sécurité familiale. Ça fait près de 113 milliards. 113 milliards, ils nous doomu réew mi ñi nga xam ne seen loxo jotul seen digg ginnaaw kon ñun ci loolu la ñu nekk nekkuñ ci ay coow. Ousmane Sonko ma nga woon foofu ca Ziguinchor nara dem fi nga xam ne nag mooy pont Émile Badiane dañu ko téye njiital Pastef nag ñaawlu na ko ndax nee na fi ñu toll nii ñëpp ñi ngi campagne te dem leeg dikk leeg bi ñëpp lañ ko war a defal ñu daal di déglu ay kàddoom ak ki nga xam ne mooy Abdoulaye Dione. Ben rien, c'est c'est des ordres de Macky Sall puisqu'il sait qu'il y une mobilisation exceptionnelle à Bignona. On nous ferme le

Si c'est Macky Sall, le candidat Macky Sall qui voulait aller à Bignona à cette heure ils auraient pris toutes les dispositions pour le convoyer à Bignona. Donc pourquoi ils veulent nous bloquer ici C'est inadmissible et c'est ce qu'on a exigé. Heureusement que le gouverneur et le colonel sont revenus à de meilleurs sentiments, ce qui permet au convoi de, de continuer d'aller faire le meeting de Bignona. Voilà. fukki nit ak ñett ñoo ñàkk seen bakken ci fukki fanu campagne rek mu nekk loo xam ne nag étudiants yi nekkee ci Cheikh Anta Diop ñoom ñu ngi koy ñaawlu daal dinañ ñoom nag li ñu bëgg mooy ministère de l'intérieur li nga xam ne wax na ko rek mu daal jël takk der yi ñu daal di ànd ak candidat yi sécuriser nag li nga xam ne mooy seen ay dox Moussa Bey ak Bamba Niang la ñu fa yónni woon. nos hommes politiques ont commencé à changer en tout cas donc le caractère même ou bien le but de la politique. parce que euh, les gens parlent de, de campagne électorale, mais c'est devenu une campagne de, de décès. Parce qu'à chaque fois, dans les journaux, on voit que dans telle région, il y a des gens qui sont décédés, c'est la violence. En tout cas, je pense que ce sont ces, ces hommes même qui, qui, doivent être des hommes de, de référence. Une personne, avant d'être donc là, en compagnie de ces gens-là, il, il devrait au moins avoir la formation. Parce que tout, c'est la formation. Maintenant, si on ne t'a pas appris donc, voilà, euh, à, donc, gérer, si on ne t'a pas appris à être en compagnie des policiers, bon, euh, si on te donne une certaine responsabilité, tu vas faire la mission. Parce que d'une part, tu n'es pas compétent. Et la compétence aussi se joue dans l'affaire. C'est pourquoi la violence se propage. Franchement, ça ne devait pas se faire. Pour une question d'élection, ça ne devait pas se faire. Euh, d'autant que euh, ils sont des candidats, ils veulent à la présidence, donc ils devaient se montrer un peu plus comment dire, responsables que ça avec leurs militants, oui. Ne pas prôner la violence quand même, on n'a pas besoin de ça dans ce pays. Puisqu'il y a beaucoup de morts et que nous savons très bien que ce qui est la plupart de ces morts-là, c'est qu'on a recruté des hommes de certaines formations. il est temps, il est grand temps même à qu'on recrute simplement des gendarmes ou bien des policiers qui sont simplement en mesure, qui sont beaucoup plus mieux placés, pour pouvoir Bon, vraiment, j'apprécie ça. Mais est-ce que nous ne devons pas simplement tenir en compte, simplement le faire simplement, à force simplement de prendre les policiers et les gendarmes, en guise simplement de sécuriser tout simplement les campagnes électorales Est-ce que nous ne devons pas aussi tenir en compte simplement, c'est-à-dire au niveau du territoire, c'est-à-dire la sécurité en tant que telle Ils n'ont pas su s'encadrer eux-mêmes, donc euh, c'est normal qu'il qu y ait ça à leur place. C'est normal pour moi. Mais C'était à eux de faire ça eux-mêmes. Bye. Du fait que le, le ministre de l'Intérieur a pris cette formation, en tout cas, moi, je partage l'avis. Et, et, comme beaucoup de gens voulons partager, on doit prendre donc des gens qui ont été formés pour cela. Ils, ils doivent peut-être, bon, ils, ils peut-être la maîtrise. Ils sauront comment faire pour bien, donc, voilà, rendre les choses pacifiques. campagne électorale bi di wéy nii maître Madické Niang nag mi ngi woon foofu ca Saloum moom nag andiwaat na li nga xam ne mooy projet am di jàmm yi nga xam ne dëkk boobu moom la nekkee candidat bii di Idrissa Seck jiite Idy 2019 jàkkaarloo na ak ndaw ñi nga xam ne ñoom ñoo ngànk li nga xam ne mooy jàmm dem foofu ca Casamance président Idrissa Seck nag nee na loolu priorité la waaye nag wax na ko waaye ànd na ak ñoom ci li nga xam ne bëgg nañ ko ndax jàmm Casamance ñëpp ñoo ko bëgg campagne présidentielle bi nag ubbi nañ ko ñetti fan ci weerum février ay bés rek ci des ñu dem ci bañ gàcce yi waaye ku ci nekk nag ak message bi nga xam ne moom ngay jébbal sénégalais yi Ousmane Sonko Sonko président jot na Idrissa Seck pour un Sénégal Sénégal pour tous un choix pur ci boobu jigéen ci dëkk yeeg dëkkaat yi ngi rek def seenub liggéey jaajëfal nañ leen bu baax a baax ci taataan xibaar yi ak Dakaractu ñu ngi leen di jaajëfal bu baax jox leen dig daje suba même heure bàyyi leen ngeen wéynu suñu programme ci biir Dakaractu yi